dama am benn feebar boo xamante ne dama bëgg ku mu si dimbale ndax dafa mu toll mag laa quoi te yor naa soxna ay yor ay doom te am naa feebar boo xamante ne feebaru saw lal la ndax dëgg yàlla ne fu mu aw ma leen loolu loo xamante ne lu ma mën a faj parce que aw ma xaalis bi nga xamante ne moom war faj maa ngi sàkk koo xamante ne mën maa dimbale dama yor soxna yor ay doom te sama soxna may lalal mu lalalee samay doom laytaay noonu la may lalalee ay toile quoi ma si tëdd chaque jour mu ngi koy xëy di ko bàcc wax dëgg fa yàlla sama soxna mu doon ko baax na koo xamante fu mu toll nii mu ngi may taxaw vraiment te fu mu toll ma li nga xamante moo ma dal nekk ak man te am lenn loo xamante ne musuma dégg nit wax na ma sa songo sa soxna nee na da ngaa feebar nangam nangam wax dëgg fa yàlla musul am. loolu depuis depuis ñaar at mu ngi même. yàgg na depuis bi may xale ba léegi sama yaay gaañu na bi may xale ba léegi sama yaay amul benn amul faj bu mu si defut ba ni mu génnee àdduna te léegi fu mu sama papa tamit la même chose. yow bi ngay bi ngay dugg sa soxna est-ce que xamoon nga loolu. sama soxna ba may dugg si moom xamu ko woon par la suite ko xam mu ko xamee ma waxtaan see moom mu comprendre na ma na ma loolu la rek bu waree leen si ko aw ah, yàlla bu neexee yàlla. te yow te yow ni mu ne la la élettaani comme bébé ma parce que dana dem nga ne xam na ko man xam naa li nga xam ne moo moom xam na loolu si man def ma benn problème sama digganteek moom. musu musuma am benn réaction boo xamante ne moom réaction na ko si parce que xam na ne carrément fu mu toll nii ndog-ndog bu ma dal la lu mu nattu yàlla bu ma bu dal la quoi. ma toll si instant yi ñaata at ni waaw pour actuellement toll naa si lu tolloog euh, 43 ans. 43 ans te maa ngi am fu mu toll laa lax nii ay doom. te vraiment yenn saa yi sax samay doom dañuy guddee nelaw dañ koy gis damay def lu tuub wax sañ yaay noonu xaar ba xale yi nelaw mu doon mu ko mu doon ma lawal. waaw moo tax moo gis Ndoye Bane pour mu dimbali moom mi nga xamante ne dafa nekkal jaam di def te yàlla tax te xam naa ne moom fu mu ëllëg yow mel xeyam moom su dugg ajana kenn du dugg